ay bismillah bismillah bismillah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok yi mbok yi man la mariet fi ci saveur planétaire macha allah fas yéene ak yeen tey ji ci kàttanu yalla ni ko fi baaxoo di defee di leen ziar yeen ñep mbok yi fas delsu wat ak yeen fi tey ji ci kàttanu yàlla macha allah ni ñu ko fi baxo di defé yeen ñep ku ci ne ñi lay wacc sa way di la ñaanal jami adina ak alakhir ak sa njabot mbok yi gis ngeen ni batay ñi ngi ci suñu opération tabaski bi fi lañu ñu tay muy suñu vinaigrette gi voilà salaat bi suñu mbokk russe yi ak waa Ukraine euh, daanaka mooy seen ceebu jënu dëkk du ñu xewle te indiwuñ salaat bi ne ko la teg ca taabal ba <laughs> moo tax ñu indi leen ko fii saveur macha allah donc mbokk yi topp leen ma ñu doxantu ndànk rek. aywa tere bien macha allah tere bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi suñu yuubi yaaba yaa ngi nii. nee nañ leen euh, ba tey ci suñu opération tabaski bi yal na yàlla may ñi ñun ñëpp ñu fekk ko te tal ko ci mag ak ni la ma yërmandeem yàlla yombalal lépp ba lépp jàppandi incha allah ba ñëpp mën a célébrer comme il faut voilà euh, mbokk yi di wax ne suñu salaat bi tey euh, suñu mbokk Russie yi waa Russe ak waa Ukraine. ñoom ñoo koy faral di def voilà donc ñoom nee nañ bii salaat bokk na ci salaat bi nga xamante ne duñ koy jaxaseeg mayonnaise Maymuna nees gi tellement que ñoom dañoo bëgg di jambaale ay may a nees ci seen yuubu yaaba ndax foofu mën di toj euh, comme ni ñu koy bëgg di tojee fii ci saveur voilà donc salaat bi ci boppam vinaigrette la tudd vinaigrette moom salaat bi moo tudd vinaigrette ma ne ko lii ko tax a neex donc gis ngeen suñu yuubu yaaba yaa ngi ni li ñu gis ni petit pois la Euh, tiital nañ ko tuuti surgelé bi lañ jël tiital ko noonu rek tuuti rek defuñu ci ndox nii dara teg ko ci pool bi noonu rek di ko gësam voilà euh, ba mu dégg jàmm noonu li ñu gis nii betterave la voilà betterave bi euh, couleur bii la yor bokkul ak betterave bi nga xamante ne moom la ñu xam mooy bu xonq bale ba yegg ci coot ma nga nela ci kaw ñuy séen voilà donc am nañ fi suñu pomme de terre bu ñu baxal moom it mi ngi nii Euh, lii nii suñu euh, cornichon la donc pickle bi la mais ku mu neex nga jël cornichon bu forox bi bi pickle bu xaw a saf suukar tuuti xaw a forox bi la euh, moom lañ jël mooy concombre boo xam ne dañ ko pickle kii suñu carotte la gis nga leen moom it baxal nañ ko ba boole leen ñoom ñëpp dagg ko ay coppati gallaxtaan yoo xam ne ñoom ñëpp ay tolloo Euh, ku am échalote mun nga ko jël moom mooy euh, prématuré soble bi sinon mën nga jël soble bu xonq bi bu ndaw boo ko amul soble boo am mais cob cobal ko nii euh, ba ñu nekk ay morceaux yu ndaw a ndaw a ndaw comme li ngeen ko gisee fii nii voilà li ñu gis nii moom mooy diil diil bi mooy aneth bi tere bien aneth baa ngi nii moom tamit donc dañuy soxla poobar pour suñu vinaigrette bi ñu koy booleel boole ci xorom si gis nga ni suñu vinaigre blanc mi ngi nii fii nii ñu ngi fi ak suñu huile d'olive donc yuubi yàbb yi ñu soxla pour suñu salaat bi nga xamante ne euh, vinaigrette la tudd te li gën a neex ci salaat bi mbokk yi macha allah mën na nekk garniture comme aussi mën na nekk entrée. mangok ngoog nak nag mu neex bu dee da ngay def sama wor jëlandoo yépp sanni ci kaw taabal ba ñuy xalangu sa yóbbu yaaba bu melni nii mën nga ko bolé dé nga maam ci bagage sanni sànni leen la rek ñuy réli réli ay wa ñu ñëw indi suñu bol may leen benn petit joxo jus mélangé bu gaaw. voilà donc rapidement pour la version française alors au menu ce soir euh, je vais préparer une salade euh, russe voilà et c'est une très bonne salade euh, très saine. Euh, c'est une salade vinaigrette euh, euh, populaire en Russie. Voilà, donc pour la salade vinaigrette, on aura besoin du petit pois, voilà, vous voyez, on a du petit pois, et ça c'est du betterave jaune, voilà. Et là, on a normal betterave, le rouge. Et ça, c'est de aneth que j'ai ciselé. Euh, de l'oignon rouge. Si vous avez euh, des échalotes, vous pouvez l'utiliser aussi, que j'ai euh, coupé finement, chop chop chop. Ça, c'est de la carotte aussi que j'ai bouilli et coupé chop chop chop. Voilà, tout ce qui est là, c'est déjà cuit. les betteraves sont déjà cuites et comment on appelle ça encore Les petits pois aussi. Voilà. Et ça, c'est du cornichon. Vous pouvez prendre ça cornichon ou bien les pickles. Et ça, c'est de la pomme de terre aussi que j'ai déjà préparé Et puis, euh, chop, chop, chop. Et on aura besoin du citron euh, avec euh, vinaigre balsamique blanc, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Aïwa. Aïwa, très bien, machallah. Mboki, nous boire ce nyubi yabayi. Aïwa. le petit poivre bi ne ko ci rel, le petit suñu betterave bu xonk bi, momit ne le ci tuy. voilà suñu ingrédients yëpp la ñuy boole fii daal di jël suñu pomme de terre bi ni ci réel jël carotte beeg cornichon bi ne leen ca tuuti voilà gis ngeen leen nii daldi jël ñoble gi ne ko ci tuy koy soble <laughs> ne ko ci ne ko ci tuy voilà su ko defee ñu daal jël ndànk.

gis ngeen len ni waw kononu, gis ngeen ko nonu dal di njoos nank ci vinaigre blanc bi voilà vinaigre balsamique bi moy vinaigre bu wex kuko amul bo am rek ni ci tuy dal di fab nank ki suñu huile d'olive raay mbelle ko ni nank ci kaw ñoko ko suko defé ñu jël suñu kuddu bi ñi yëngalé salade ci may ko ben petit mélanger <laughs> José, mélangé gis ngeen ko ni rek déjà am couleur bo je bu muccu ayib la di jël ne ko voilà gis ngeen ko di salade bi préparer la veille def ko sa frigidaire après nak bo xeyé di génné waxtu wi koy soxla nga euh, room temperature voilà température ambiante ah très bien mooy defe nga ne kii rek nga boole kook sa wàjj bu toog léegi nag ñu jël suñu kudd bu ndaw daal di ko may benn petit mos xool nu fi bagage yi toogee waaw gis ngeen ko nii macha allah yànj na neex na ba pare yi ñuy baxal yëpp bu leen ko baxal ba mu dee ci xol bi nay xaw a cuqum cuqume tuuti bañ a bañ a bañ a ñor ba ci xol bi ndax ñu mën a bénéficier wu ci vitamines yi nga xam ne moo ci ne kii mooy salade vinaigrette ak a cuquta neex ay mbokk yi très bien macha allah. Masyaallah, wala quwwata illa billah gis ngeen ko ni donc suñu salade bañ ni muy euh, vinaigrette euh, suñu mbok russe ak wa ukraine diko defar gis ngeen ko mi ngi ni rafet ba bëgg a dee taw xuma len lolu sax tiaf euh, ko gi mu andal joggi dayo joggi dayo mbok yi gis ngeen suñu salade si inshallah dañu fassiyene doxantu ndank ci yalla ba las palmas waaw las palmas la dem yekkal ci suñu sista bu baax ndey mbéri ñay njaay jaata naan ko salaat sàngi mais dimbale ma rek nanga nga ma doxantul ndànk ba ci sama yaay Faat Jóob waaw euh, joxal ma ko wàllam moom tamit sama yaay eh, waaye diggante njaay nag jóobeen de xanaa loolu saveur mooy ëffal loolu de <laughs> loolu de ëffalu saveur la mais macha allah macha allah yéen moom yàq gi tey. aywa très bien macha allah macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi suñu yóbbu yaaba yaa ngi nii muy suñu salaat bi nga xamante ne mooy vinaigrette nee naa leen mën na nekk entrée. defa nga ne lii nga jël say xob yu wertu yooyu ne rancé la ko ba mu tere bien jël ki xëpp ko ci ndànk boole kook sa yuubiyaa ba foofa daal di toj waaw comme mën na nekk tamit garniture comme ni ma koy waxee rek wàjj ko ba muy xoole benn place rek jël lii ne ko ci réel bàyyi leen ñuy nongi nongi waaw foofa daal di toj aywa très bien macha allah très bien macha allah wala quwata illa billah mbokk suñu salade vinaigrette a ngi nii Russie lañ leen demaloon tey ci kàttanu yàlla indi leen lii nee leen lépp rek ci mouvance su opération tabaski 2020 euh, 2020 euh, fii ci saveur planétaire loo ko booleel mu dem. bu la neexee nga may ko mu doon sa entraîné ci ruq ba day dem bu la neexee nga sànni ku ne leen ndànk ci ginnaaw mu nekk garniture moo xam looy teg ci kanamam ñu àndandoo di nongi nongi waaw su ko defee foofay toj tere bien. merci beaucoup mbokk li lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire macha allah di leen ñaan la baaraamu kaw sëlëla wu cax mu yéeg di nongi nongi moom it ca kaw coll baraamu suuf gi nag moom la may faral di wax rek bankal leen ma ko ba wóor ma ne maa amul ak moom benn affaire foofa daal di toj mbokk di leen ñaan ngeen gën a partager yëf yi ci seen network yi bopp yi ngeen am tamit dugalal leen ma leen biir Instagram dugalal ma leen euh, nu leen di woowee ca biir WhatsApp la waaj na woon WhatsAppal ma ko WhatsAppal leen ma ko <laughs> su ko defee foofa daal di toj aywa bon appétit salaamaaleykum wa rahmatullah très bien